lës dafa am lu bëgg a leeral rek sama tërëg man damaa comprendre mais nee na ma moom waxut ak yow xam ren mais Adama bu ma man sax dama dafa lu may leeral rek dama bëgg maanaam sénégalais yi comprendre loolu tax ma bëggoon a wane dama dama am sénégalais yi laa bëgg ñu comprendre may ma ma ñëw rek. lës dafa am lu may. Euh, Sira dafa am benn affaire boo xamante si nii moom laa la bëgg a leeralal. même budul fii nii déglul ma wax la bu baax de même budul fii ci live ndax ci live sa kenn mënu fee wane dara dama lay wane la yow ba ma la booleeg lës lépp lu fa xew xam naa ko lépp lu fa yëg maa ngi moom te su may katt sa ndey su may katt sa ndey dalay bett del toog di seetaan ba la maa coupé bi ba live bu live bi coupé dinaa dëgg sa ndey ba nga xam ne toj naa sa lëfal ndey parce que man ku ma kaata ma fayu dama amoon ci yow confiance woolu la nga woo Cheikh Ahmed wax ko ko mu ne la doxaleen nii doxaleen nii sama xel musa dal kartal laa njëkk a woo kartal ne ma ah sa waay la de yaa ko génnee ci situation man nandite laa de xanaa xama man nandite laa parce que sama xel sax dalul woon barke Serigne Babacar Sy dama woo kartal ne ko Sida mi ngi may jox ay information ci Cheikh Ahmed est-ce que information yi moom mooy loolu yow wóolu nga ko man de wóoluwuma information yi mu ne ma Sida du la def loolu ndax dafa am foo ko taxaw te dëgg la 2023 laa ko xam taxawu ko fu ne barki alxuraani karim 2023 taxawu ko fu ne boole ko ay nit dimbali ko mais lii du gàcce gars yi déedéet teguñu ma scénario teguñu ma dil man maa woote mu woo Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed ne ko defal lii defal laa Sira moom gëmul dara moom xaalis rek la gëm moom boo ko diggee xaalis wala nga ko dara rek mu seere li nga bëgg a seere moom xaalis rek la gëm lii yàgg moom Cheikh Ahmed boole wuñu de kii dama bëgg mu leer wane naa kañ laa ko xam ak kañ la ñu xamante woolu nit yàgg ak moom mais nit ki ma woolu yàgg man mu war ma loolu du dara loolu du dara mais buñ ci jaarale di profité aadama ni ngay def aadama déedéet dama woolu nit nit ki war ma léegi nag loolu seetaan lim nga ma ak nit ki fan la nii mujje man ak sayra awa seetaan leen ma fan la ni mujje lenn nag moom ma ci xaw a naqari yi lenn moo ma xaw a naqare ci affaire yi muy ndaw si ndaw si di ñuy woowee Binta te ñu yónnee ko fotoom dafa taal live di jooy dem ci Irondidi di di jooy ñu bari seetaan nañ ko di jooy mu ne dafa am jëkkër mu ñaan na yàlla na ma yàlla bàyyi génn yàlla na ma yàlla àtte génn mais dama ne la sayraa déggal Bintu boo amee koy waxal dangay ngay wax ak Cheikh Ahmed Cissé mi jël sa photo yónnee ko sayraa pour jox ko aadama ne la yow la ëmbal yow la biiral yow la kat te nga am jëkkër dama ko bëgg a leeral kanamu Gambien man defuma la dara jëluma sa photo yónneewuma sa photo dan maa moom Ahmed Cissé moo jël sa photo yónnee ko sayraa sayraa yónnee ma ko parce que dafa dem ci live di live di jooy Gambien yépp wër ko mu ne dafa am lu ko wetti Gambien yi wër ko mu ne dafa am lu ko metti daa am lu muy naqarlu man dugaluma sa photo danu ma yónnee ma teg moom moo yónnee sa photo Sayra pour Sayra teg ma dil mais c'est bon Sayra moo ma teg dil mais d'accord mais Sayra man après man ak moom dinaa ko seere mais Cheikh bi euh, Cheikh Ahmed dama bëgg xam benn affaire nga pour nga xam ko mooy man Adama Boss Day Negri sama niveau mënoo ko wàccee man ba Adama Boss Day Negri ni ma mel ci réew mi kenn du ko dindi. man Adama Bosté Negri fii ci réew mi fii fii fii xanaa beneen man nga dem Chine man nga dem Afrique man nga dem Canada mënoo yàq ci li may def virgule te man sénégalais yi xam nan man may kan lii mi ngi may doog a dal ba ma juddoo ba tey nit ñëw jox ma information dugg ci live wax wax ak nit ka nga xam ne nii moom laa joteel mu ñëw génne information yi première fois dans l'histoire Sénégal mi ngi may doog a dal man lépp lu may génnee day leer preuve la te lépp lu ma mës a génnee kenn laam-laamewu ko lu may téye la mu doon original mais Seyra dimbali naa ko am naa lu mu séq ak moom yàgg na ma wóolu ko sukkandiku ci information yi ma jox ma dugal ko mais loolu du dara loolu du gàcce de déedéet mi ngi doog a am dañu koy accepté mais lii dalay jàngal fi li nga def nii Cheikh Ahmed dara danga may jàngal lii dalay jàngal àdduna pour nga yeewu ci yu bari ci comprendre nga pour yu bëri nga yeewu ci man jàpp naa dara newu ci de aayul de aayul àdduna lay jàngalaate pour nga xam say nit xam ci ñi ngay dugg xam ci ñi ngay jëfalanteel mais sayra bu ma paree ci yow nga xam ne yàlla julli rek la santaane barki sëriñ Babacar Si dinga ma woo di jooy Adama yal na la tax ma ñeme ko dama leen di wax rek. man ma bàyyi. xoolal. lii moo nekk ndombam bi ndombam baa ngi nii fu mu nekk nii man bëgguma sax nga yónnee ndombam bi kenn dama bëgg nga message ko moom understand soo ma ko message alee nga wax ko ne bu mu foog ne police bu ma yóbbu loolu dina tax man ma bàyyi. et ci lay kalkale biir yooyu yëpp bi ma ko yónnee ma dellu Gàmbi su sama paas ma dellu Gàmbi. dégg nga waa ji da koo indi ba Dakar katt ko ba pare jokku ko xaalis mu yónnee ma vidéo yi yónnee ma yëpp dem boole koog police yi ñu jàpp ko Sira maa ko génnee moom la doon expliqué ci live bi mais Ahmed Cissé moo ko dagg. ne ko bul eggale ndax mi ngi la doon yóbbu amoon na nag benn temps ma nekk loolu la leen doon nettali mais Cheikh Ahmed Cissé moo bëggul woon mu wax ko. parce que day daanu parce que fi ma ko ji ak teraanga bi ma ko yóbbu ma boole koog lës lës jëli mu bindal ma lii gis ngeen ci angale ba ma ko xamee yàgg na de déglul. sa xarit bi he's very cool amul benn problème génnee na ma dina na ma lekka ba suur mu jëndal ma chicha ma tuux mu andi si waat ma kër jëndal ma orange he's very cool mu ma doon waxtaan. lës lay wax. thank you so much. lës lay wax. déglul. léegi laa agsi moom daf ma andi rek bu mu wàccee ma si bunti kër bi sama lam continué mu dem. yaa. lës lay wax moo ko jëlee woon ci brigade bi police. waaw moom moom kañ dafa baax moom moom kañ ama fayam bi laaw la dafa baax. lekkam moom ñaakuma ko def ma dee jox ma lekk def ma dee jox ma naan def ma dee woo always. lës lay waxal ba tey. yàlla fay. leen ni may ñaanale. Adama naka yaa ngi faal. maa ngi nii si moto bi di ñibbi. jërëjëf thank you so much. Um, naka la mu sax. man nag dama bon man duma dee xam ne di seen tur loolu moo nekk sama problème sa xarit. taral na ma. marginal day wo anyakren everyday pare may na ma paas pour ma ñibbi maa ngi nii jërëjëf yal na ok léegi dama leen di wan rek ok léegi dama leen di wan rek li tax ma jox ko confiance di wax ak moom lii la ñu seq avant Cheikh Ahmed dama leen di nettalil avant Cheikh Ahmed lëës sax woowoon na ma ne ma ngir yàlla ak yonent bi bu tudd sama tur ci live bi mais lëës maa ngi lay jéggalu leeral moo taxoon rek ma ne katt nga ko yaa ko jëli woon te brigade ba dama doon leeral pour sénégalais xam ni may wax maa ngi jéggalu sida mi awala tudd caga bu mag la gi ngeen koy gisee nii dañ koy wër ko katt rek moom ci euh, hôtel yi lay topp boîte de nuit yi amul lum lekk amul lum naan barki Serigne Babacar Sy ban ko jàppee maa ko doon jàppale di ko booleeg ay nit ma am ci moom confiance nag woo ko ba ma ko woowee xam naa moom moo woo Ahmed Cissé enregistré ma yónnee ko Cheikh Ahmed Cissé ndax nee na dafa woo Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed tegal ko ne ko léeg-léeg lii man bu waxee damay gëm parce que fi nu jaar la xam nga kan la ni mooy koo xamante si nii dafa ñëw ne la Adamo ça man la diw yor naa information Cheikh Ahmed Cissé ñi ma ko def ñëpp dama leen da bloqué kii dama koo xam kii man maa ko woo kenn yónneewu ko ci man déedéet man maa ko woon ko dama joteeg Cheikh Ahmed mu jël téléphone am xam naa woo Cheikh Ahmed mais loolu dara mais loolu dara da woolu nit di seq ak moom dara nit ki dem war la mi ngi mel ne ci politique bi rek da ngay far ci Ousmane Sonko yaakaar ci moom dara Ousmane Sonko mënu la koo jox ngay wëlbatiku dem ci Macky Sall commencé génnee secret Ousmane Sonko mais loolu dara loolu c'est la vie moom dafa duul mu ne. lépp lu mu aadama masa di waxati ñi nit bu leen ko gëm parce que day fen déedéet lu ma masa wax sénégalais yi dama koo teg ba mu leer woo nit ki mu leer naññ lii mi ngi doog a am sama àdduna lii mi ngi may doog a dal te ci kii mu ma dale sax yaakaaruma ko ci woon ci moom ndax dama koo taxawu fu ne mais loolu man terewumaa lekk terewumaa naan Cheikh Ahmed man Sénégal kenn munu Sénégal kenn munu ma fii defal defet kenn munta wax Sénégal fii fii fii fii fii ba aadama nekk fi ku ndaw déedéet man ku mag laa benn bi yaa ngi wax naan ba ngoom mi yaa gisee digganteem ak Farba Ngom aadama xam na ci dara wax na ko ko te kattana na def na la nangam dina ko génnee du dëgg seex bi da ngay toj sa lëfal ndey soo amee loolu kattal ndeyam ci taabal ji man maa la ko wax li nga wax yeneen ak yeneen ci kilifa yi man ñi may séqal ñëpp sama diggante ñoom lay dem samay niti bopp lan ilimaan mi nga tudd sama papa la sama lépp la lu ne la may defal sama diggante moom kenn mësu koo xam waaw doora sama nit ku baax la ñeneen a ñeneen samay nit lan mosumaa jël seeni secret di ko génnee te aadama mos sa wane ci réew mi loo xamante ni du dëgg lépp lu ma mos a wax dëgg la lii daf ma bett ci siraam yi nga xam ne dama ko taxawu policiers yi jàpp ko ah ma taxawu ko jël génnee ko woo lës may ko lës lës katt ko teral ko may ko xaalis muy jooy amul paas barke Serigne Babacar si ma taxawu ko moo tax ma wóolu ko de bu ma joxee information ma jël ko defal ko information bi génnee ko lii la mais Ahmed bul ne maa ko tëggal scénario maa ko def nangam déedéet boo dee tëgg scénario yow yaay yónnee Sira ne ko demal ci aadama ne ko am naa information Cheikh Ahmed Cissé bu boobaa man duma ko woolu mais man maa ko woowal sama bopp moom dalaa woo rek xam nga moom pauvre la moom bu la woowee nga ne ko defal lii defal lii naana séeréel lii rek mu dugg ci moom boo ko waxee cinquante mille trente mille rek loo bëgg dala koy defal day joxe lëf li ci dix mille da koy katt ci cinq mille moom cagala buy taxawàllu cagala boo xam ne day wëreelu amul fu mu dëkk foo ko wax rek fa lay nekk mi ngi nii moom lépp photo yi yëpp la may yónnee ay ay main de bain sax maa ko dul xool taluma ko cagala bu mag ma ñëw yii yëpp du ma ko xool yëpp moo ma ko yónnee du ma ko xool sax lii yëpp dima ma di ma provoqué yàgg na de kii ba ma ko xamee maa ko dul seetaan léegi nag léegi nag Sénégal yi dama bëgg ngeen xam ne kii ab caga buy tàquwaalo la deuxième point bi may ñëw maa ko booleeg lës lës katt ko lës katt ko ba ko lës kattee ba pare woo ma ne ma katt naa booy bi mu woo ma ne ma lës katt na ma waaye lës est-ce que njariñam bari na loolu ma ne ko nit ku baax la ku mën a yor doomu aadama la suba gi mu yeewu ne ma xulloo naag lës ma woo lës lës jox ko xaalis jox ko paas mu ne da koo bëgg a yeb mu ñibbi ba mu demee ba yegg moom la may remercier nii léegi nag damay ñëw ci vidéo yi lës sama xarit la siraa wan waxoon naa la ko nee naa la du ma yàq nit de mais sama digganteeg moom lépp lu ci xew sax du lu ñuy wax ci live